juróom-ñetteel bi mu ne haza rajulu góor gi taajirun commerçant la wa zalika rajulu góor gële tabibun docteur la ismu taajiri turu commerçant bi mahmud mahmud la wa ismu tabibi turu docteur bi said said la haza albaytu kër gi li taajiri ñel na commerçant bi wa zalika albaytu kër gële li tabibi ñel na docteur bi baytu taajiri këru commerçant bi amaama almasjidi moo nekk si kanamu jàkka ji wa baytu tabibi këru docteur bi xalfal madrasati moo nekk si ginnaaw école bi liman haadihi sayaarat kan moom moom oto bi wali man tilka ak moom oto bële ne haadihi sayaarat oto bi li tabibi ñeel na docteur bi wa tilka bële li taajiri ñeel na commerçant bi haadihi sayaarat oto bi min al yaabaani moo ngi jugee yaabaan wa tilka bële min américa moo ngi jugee amérique tamarin li ay jéemantu la ajib tontal anil asilatil aatiya si laaj yi dikk mu ne man haada rajulu kan mooy góor gi wa man zalika rajulu ak kan mooy góor gi la yaa koy tontu man maa ismu taajiri la mooy turu commerçant bi maa ismu tabibi la mooy turu docteur bi min ayna sayaaratu tabibi ana oto directeur bi min ayna sayaaratu taajiri ana oto commerçant bi ayna baytu taajiri ana kër commerçant bi ayna baytu tabibi ana këru docteur bi yaa koy xool fii fii si dossier bi foofu nga koy tonte mu ne ayn iqra jàngal waktub te nga bind haazal waladu xale bi xaalidun xaalid la wa zalika al waladu xale bale muhammadun muhammad la haazal rajulu góor gi mudarrisun jàngalekat la wa zalika rajulu góor gale muhandisun ingénieur la haazal kitaabu téere bi jadidun lu bees la wa zalika al kitaabu téere bale qadimun lu yàgg lu lu yàgg la lu màggal la haadihi sayaarat oto bi li aliyin ñel na ali wa tilka oto bale li xaalid ñel na xaalid hada albaabu bunt bi maftuxun liñ tëj la wa dalika albaabu bunt bële muxlaqun liñ tëj la liman hadihi saatu kon moom moom montur bi ne hiya moom li abbasin ñal na abbas hada albaytu ndax kër gi li tabibi ñal na docteur bi laa déedéet hoo moom lil mudarrisi ñal na jàngalekat bi hadihi darajatu ndax vélo bi li ibni almuazzini li doomu noddukat bi la naam waaw man hada alwalad kan mooy xale bi hoo moom taalibun étudiant bu góor la mina siin bu jógee siin azalika albaytu ndax kër gële lu bees la laa déedéet hoo moom qadimun lu yàgg jiddan lool haadihi sayaaratu oto bi min al yabaani mu ngi jógee yabaan wa tilka oto min amerika mu ngi jógee amérique haada sikkiinu bi min almaniya mu ngi jógee almaañ wa tilka al milaaqatu ku duggee min angleterre mu ngi jógee angleterre mu ne al misaalul aate misaal yi dikk xawil iqra jàngal al misaalul aati misaal yi dëkk su ma xawil toog mu formé al jumla aati jumla yi dëkk misla yu mel ni moom misaal bi misaal moom mooy mis misaal baat yi dëkk baat yi dëkk yaa koy xool nga daal liggéey do comme misaal bu lay jox nii misaal bi moom mooy misaal misaal bi haza kitaabun dafa jox haza li kitaabun téere la kese li li si war def moom mooy haza kitaabu téere bi li muhammadin ñel na muhammad yeneen yi tamit yow yaa koy defee noonu yeneen yi mu lay andilaat mu ki haza haza kii tabibun docteur la yow toog toog docteur bi mu ngi jógee hind maanaam mu bind la ko demee minal hind haza hazi yi lii sayaaratun oto la lil mudiri ñel docteur bi yaa oto bi ni docteur boo ko moom zalika zalika zalika kële waladun xale la ibnul mudarrisi doomu jàngalekat bi tilka lële saatun montur la min suisse min suisse mu ngi jógee suisse haza lii baytun kër la lil muhandisi ñel na ingénieur bi haza lii xalamun big la li abbas yi ñeel na abbas zalika kële rajulun góor la muazinun noddkat hazihi lii baydatun nen la kabiratun bu mag haza lii min diilun musuwaar la wasiqun bu tilim hazihi lii xaqibatun saag la lil mudarrisi ñeel na jàngalekat bi iqra jàngal al misaalul aati misaal yi dik su ma kamitoon wa famas elatan laaj wu aju ba tan ak tontu mislo yu mel ni moom misaal bi yaa koy jàng naka loolu tamit yeneen yi tamit yaa koy def yaa si def laaj su ko beneen côté bi tamit nga def fi tontu bi mu jox na la misaal mu ne la misaal misaal bi li man xaasal kitaabu kon moom moom téere bi kon yu féex yi nii bi yaa fay laajte mu ne li man xaasal kitaabu kon moom moom téere bi mu ne beneen côté bi yaa fay tontu nga ne xaasal kitaabu téere bi li Muhammad ñel na Muhammad moom Muhammad bi kese la lay defal waaye yaay laajte mu tegal la si diggante bi photo big bi wala mu téye photo téere bi mu ne la ku moom nga ne ko moom big bi nga ne big bi ambaas moom kon ba yeneen yëpp noonu nga koy defee moo tax mu tegal la fii big yaay laaj si nga ne big moom big bi ambaas moo ko moom comme bi oto bi nga ne oto bi directeur nag bi nga ne bi baykat bee moom ku moom saag saag bi jàngalekat bee ka moom ku moom chaise bi nga ne chaise bi amaar moo ko moom ku moom ganaar góor gi nga ne ganaar góor gi doomu baykat bee ko moom ku moom montur bi nga ne montur bi doomu directeur bee moom ku moom kër gi nga ne kër gi kër euh, euh, docteur bee ko moom ku moom ku duggee nga ne ku duggee étudiant bu góor bi yaa koy bind yaa koy laaj yow tamit yaa koy tontaat en tendant mu ne amal seetantalal al misaalu al amsilatul aati misaal yi dëkk yi yi dëkk nga seetantal mu ne al baytu kër gi fil bayti ci biir kër gi minal bayti jógee ko si biir kër gi ilal bayti jëm si kër gi al mustashfa mi firi hôpital biir hôpital bi minal mustashfa jógee si hôpital bi ilal mustashfa jëm si hôpital bi américa amérique fii américa ci biir amérique min américa jógee amérique ila américa jëm amérique almania fii almania si biir allemagne min almania jógee allemagne ila jëm allemagne li mooy jàngal uh, xarufu jar yi ba min ila fii boo ko déggee foo moom mooy ci biir booy wax dara nga bugg a wax ci biir fii nga si dugal comme boo bëgg a wax si biir école bi danga naan fil madrasati konte boo bugg wax jugee ko miin min min ngay utiliser booy wax baatu jugee fenn min ngay utiliser booy wax baatu jëm fenn ilaa ngay utiliser comme ilal madrasati ne minal madrasati jugee si école mooy booy jugee si école bi min ngay utiliser booy dem ilaa ngay utiliser ak feneen tamit boo bëggee dem feneen mu ne iqra jàngal waktub ta nga bind haza tabibu docteur bi min Ingiltara moo ngi jógee Angleterre zahaba dem na xaamidul xaamid ila faransa jëm France mahmud mahmud maridun aji feebar la woo moom alaana léegi fi lmustashfa moo ngi ci biir hôpital bi zahaba dem na abdullahi abdullah min almaniya jógee almaañ ila Ingiltara jëm Angleterre haada alkitaabu téere bi li isa ñel na isa wa zalika alkitaabu téere bale li moussa ñel na moussa haada almuhandisu ingénieur bi min américa wa ngi jigee amérique mu ne iqra jàngal asabootu tableau bi amaama taalibi mooy si kanam étudiant yi waaye moom xalfal mudarrisi moom moo nekk si gannaaw jàngalekat bi ayna sayaaratul mudarrisi ana oto jàngalekat bi yee moom amaamal madrasati mooy si kanamu école bi ayna baytul imam ana këru imam mu ne baytul imam këru imam xalfal masjid moo nekk si ginnaaw jàkka ji ayna jalasa xaamid fan la xaamid toog jalasa toog na moom xaamid xalfa xalfa mahmud si ginnaaw mahmud zahaba dem na ammaar ammaar ilal masjid jëm si jàkka ji wa jalasa toog na amaamal mihraabi si kanam mihraab mihraab bu déggee mooy fi imam di jiite minbar mooy fi imam di xutba alkalimaar jadida ñu ñëw baat yu bees baat yu bees dars bi moo nekk nii jar na nga jàpp ko bu baax ndax keroog boo demee feneen nga bëgg a waxaat comme baat yu mel ni ba si yu ñuy sukkandiku yu ñooy base bi mu ne almustashfa mooy firi hôpital almania mooy firi allemagne ingiltara mooy firi angleterre suisse ra mooy mooy firi suisse asikinu mooy firi paaka frança mooy firi france bu naan france dëkk amaam mooy firi si kanam xalfa mooy firi si gannaaw a darsu taasiyan lii mooy darsu neuvième mooy darsu juróom ñeenteel bi man haza rajulu kan mooy góor gi huwa moom abbaasun abbaas la abbaas abbaas taajirun commerçant la abbaas abbaas taajirun commerçant la ganiyun bu riche xaamid xaamid mudarrisun jàngalekat la xaamidun xaamid mudarrisun jàngalekat la jadidun bu bees ma haza lii la la haza lii tufaaxun pom la ak tufaaxu pom bi faakihatun firwi la lazizatun bu neex ma zalika lëlee la la zalika lale usfurun picc la al usfuru piccum usfur taa'in picc la saxiirum bu ndaw al arabiyatu langu arab lugatun lang la sahlatun bi aji yomb al arabiyatu arab lugatun lang la jamilatun bu rafet amaar amaar taalibun étudiant la mujtahidun bu góorgóorlu wa mahmud mahmud taalibun étudiant la kaslaanun bu tayal man anta yow la kan ana man taalibun étudiant la a anta ndax yow taalibun étudiant nga jadidun bu bees a an eh, naam waaw ana man taalibun étudiant la jadidun bu bees tamarin lii ay jéemantu la ñu ne iqra jàngal waktub ta nga bind muhammad muhammad taalibun étudiant la qadimun bu yàgg dalika rajulu ndax góor gële mudarrisun jàngalekat jàngalekat jadidun bu bees la laa déedéet hu moom tabibun docteur la jadidun bu bees haza li darsun darsu la sahlun bu yomb abbas abbas taajirun commerçant la shahirun bu siiw bilal bilal muhandisun ingénieur la kabirun bu mag al inglisé langue euh, anglais lugatun langue la sabatun bu jafe anta ndax yow rajulun góor nga xadiyin bu riis laa dére anaaman rajulun góor la faqirun bu ñàkk alqahiratu qahira madina mooy capitale Égypte madinatun dëkk la kabiratun bu màgg ah anta ndax yow mudarrisun jàngalekat jàngalekat nga xadimun bu yàgg jàngalekat bu yàgg laa déedéet ana man mudarrisun jàngalekat laa jadidun bu bees xamid andax xamid taalibun étudiant la kaslaanun bu tayal laa déedéet huwa moom taalibun étudiant la mujtahidun bu góorgóorlu fii nag bu gisee mu wax fii demaat fee gis nga xool si raqam yi rek bu defee un deux trois bi quatre bi fu mu ko bindaat rek foo ngay demaat nga lire foofu fil firaax yi si féex mooy tere tere yi mu def nii fil jumla al yi si jumla yi dëkk naatan naatu munaasibun mu dëkkoom naat nag boo ko déggee mooy melo loolu yaa koy yàgg yàgg fii teg mën a xarija na xarija taalibatun etijaala nangam mooy li nga koy melal euh, taaliba moom taaliba étudiante bi moom ngay melal moom moo foofu foofu yaa teg naat mooy loo melal xarija xarija taalibatun étudiant la nangam al arabi étudiante la mooy étudiant bu jigéen arabiyatu la euh, arab lugatun langa la nga def bu nangam ak tufaaxu pom bi faakiyatun firwi la bu nangam muhammad muhammad talibun étudiant la bu nangam anta ndax yow talibun étudiant bu nangam yaa yëpp yaa koy def xaalit xaalit taajirun commerçant la bu nangam al usfur picc bi picc usfur taayirun picc la bu nangam anaa man mudarrisu jàngalekat la bu nangam al ingiliziyya langue anglais lugatun langue bu nangam al qahiratu qahira madinatun dëkk la bu nangam yii yaa koy def loo xamante ni da koy melal ba nga ne abbas talibun mu tey dun ko ngoogu moom mooy naatu gi fii yeneen yi yëpp yaa si def waaye yaa si def li nga ni moom moo dëppoo moom naatu boo xamante ni moom baat bi la dëppoo fi lmakaani alxaali si barab yu weti fi ljumle l aatiye si jumle yi dikk manuun tan manuun munaasabun bi dëkku manuun mooy li nga xam ne moom la ñu mel naat mooy mel melu waaye manuun mooy li nga xamante ni moom la ñuy melal ah, abbas taalibun mujtahidun abbas taalibun googu mooy manuun moom la ñuy melal mujtahidun gi moom moo ñëw pour melal ne moom ku góorgóorlu la kon manuun mooy li nga xamante ni moom la ñuy melal mu ne al arabiyatu lang arab nga ne nangam sangam sahlatun bu yomb Ammar Ammar nga def euh, si digg bi yaa def ba ganiyun bu riche Faysal Faysal nangam sangam kaslaanun bu tayal ana man nga def dara qadimun lu yàgg haza li maksurun na waaye yaa si teg manoo bi nga xam ne moo dëpp moom baat ma nga xam ne moo dëpp moom war nañ si digg bi yàgg si def mu ne iqra jàngal kaslaan aji tayal jawaanun aji xiif atshaanun aji mer qad ah, atshaanun aji mar aji mar lay firi qadbaanun aji mer malaanun aji fees ana man jawaanun aji xiif laa a anta ndax yow jawaanun aji xiif nga laa dir ana man atshaanun aji mar laa limaada almudarris lu tax jàngalekat bi qadbaanun yow mu mer tey alkawbu kopp gi malaanun aji fees la mu ne alkalimaatu jadida yi ñooy baat yu bees dara su mu ne allugatu lang Uh, attaa'iru picc jawaanun aji xiif xadbaanun aji mer shahiirun aji siiw alyawm mooy firi tay atshaanun mooy aji mar alxusuuru mooy firi picc almindiilu mooy firi um, uh, almadinatu mooy firi dëkk kaslaanun mooy firi tayal malaanun mooy firi aji fees alyawm mooy firi tay mu baax baax mu ne aynal mudarrisu ana jàngale uh, alif ak baa alif mu baa moo nekk ni mu ne aynal mudarrisu ana jàngalekat bi huwa moom fil fasli mu ngi si biir classe bi wa aynal mudarrisu jadid ana jàngalekat bu bees bi huwa moom indal mudiri mu ngi si directeur bi ayna taalibul jadid ana étudiant bu bees bi zahaba dem na ilal maktabati si si si ah, zahaba dem na ilal maktabati jëm si bureau bi mais man man zalika rajulu kon mooy góor gële atawil bu ñëwee allazi bi nga xam ne xaraji génn al aana léegi minal madrasati jógee ko ci école bi nga ne xuu moom almudiru jadi moom mooy moom mooy directeur bu bees bi wa minal waladu saxiir kan mooy xale bu ndaw bi allazi bi nga xam ne xaraja génn al aana léegi minal fas yi jógee ko ci classe bi mu ne xuu moom ibnul mudiri doomu directeur la al jadi bu bees liman tilka sayyaatu kan moom moom oto bële al jamilatu bu rafet bële ya moom lil mudiril jadi ñeel na directeur bu bees bi liman haadal kitaabu kabiir kan moom moom téere bu mag bële aw moom ndax moom lil mudarris yi ñal na jàngalekat bi la ñal na jàng laa déede xoo moom li taalibi jadi ñal na étudiant bu bees ay na lu mel anqatu an kudd assaxiratu bu ndox bi xëw moom xëw si biir kopp bi ay na kursi yu ana chaise almaksuur buñ dawm bi xoo moom naa nekk fii mu ne tamaarin li ay jéemantu la iqra jàngal waktub tanga bind at tabibul jadi docteur bu bees bi mustashfa moo ngi si hôpital bi wa tabibul qadim docteur bu yàgg bi nag fil mustawsafi ba moo ngi si clinique bi alqalamu bi almaksuur buñ damm bi alal maktabi moo nekk si kaw taawul bi almirwaxatu almirwaxatu ventilo aljadidu bees bi fil xurfati alkabir almirwaxatu ventilo aljadidatu bu bees bi fa jigéene fil xurfatil kabir moo kabiratu moo ngi nekk ci néeg bu mag bi mu ne allugatul arabia langue arabe sahlatun aji yomb la alwaladu tabi tawil xale bu ñoolu alladi bi nga xam ne xaraji génn min alfasli si classe bi al aana léegi taalibun étudiant la min al étudiant bu góor la min al hind mooy jógee hind ana man fil madrasa sanawiya maa nekk si école sanawiya mooy classe yi ñu jëfee bac mu ne zahaba dem na ar rajul góor al faqiru bu ñàkk bi ilal wasir jëm si ministre bi jalasa toog na al talibul jadid étudiant bu bees bi xalfa xaamilin si gannaaw xaamil as sikiinul kabir paaka bu mag bi xaadun aji ñëw la jiddan lool man hada al walad kan mooy xale as saxiir bu ndaw bi huwa moom ibnul mudarrisi al jadid moom mooy doomu jàngalekat bu bees bi imla feesalal alfiraaw yu fiiqi fi maa yeli si luy dëkk bin naati si naat allaji bi nga xam ne bay na xaw sa in moo nekk diggante ñaari di yi bada bada taxli bada taxli taxlit yi gannaaw boo ko takkee bi al ci al ànd luzum bu buree al war na see mu ne ah, di yi nii yaa koy feetal mooy yu féex yi nii def nga def si ah, nga def nga def nga def si ah, nga def si naat boo xamante ni maanaam dina méngoo moom nga def comme bu dee def am loo xamante ni comme al Ah, bu dee ba bu dee war naa am alal nga def ko si bu dee warta am alal nga bàyyi ko mu ne aynal mudarrisu ana jàngalekat yu bees bi yàlla ana mudarrisu ana jàngalekat bu bees bi kon ba foofu ndax te yun ko si la war a am naatu bi yaa war a yaa ko yaa war a def mu ne attajiru commerçant fi suuqi mu ngi si marché yaa def laaju bi mu ngi si marché bu mag bi léegi yaa yaa koy def nga xool noo ko defee mu ne ana ana man taalibun étudiant la xadim bu yàgg man étudiant étudiant bu yàgg la jaalisu jalasa toog na ak taalibu étudiant bu góor bi xalfa Muhammad si ginnaaw Muhammad étudiant eh, jalasa toog nga naan nga naan étudiant eh, bu bees bi toog na si ginnaaw Muhammad ñu bari nga war def moom lay def lii defal la ko nii mu ne ma lu war a kan mooy xale kan mooy xale bu njool allazi bi nga xam ne waaye moom bind ko ne waaye yaa koy def nga xool noo koy bindee bu dee waroon am al nga def ko si allazi bi nga xam ne xaraja génn al aare léegi menal fas jóge kalaaju tawil gi moom la def si mujj gi noonu amaar amaal wala dun xale la xasirum euh, bu gàtt yaag si dam nga xool nu nga ko dafay waxam war naa am al wala déet faysal faysal tabibun docteur la shahirun bu siiw mu ne liman haza sarir kon moom moom lal bi max buñ dem ku moom lal buñ dem bi yaa koy def nga def nu ñu war nu mu war a demee yaa ko ba war naa am al wala déet haja lii xalamun big la maxsuurun buñ dem yaa def mu xool wax naa am ndax war naa am al wala déet ay na sikkiinu ana paaka bu ñëw bi yaa koy def nga def ba xam war naa am al wala déet liman haaji sayaaru kon ba moom kan moom moom oto bu rafet bi yaa koy def nga xool ba xam war naa am jamilatun kese la yaa xool ba xam war naa am al wala déet mu ne iqra jàngal mu ne al taalibu étudiant allazi bi nga xam ne xaraja génn min al fasi si kalaa bi al aana léegi min indi min indonésia mu ngi jóge indonésia ah. mu ne al kitaabu allazi téere bi nga xam ne alal maktabi moo ngi si kaw taabal li mu dara si ñal na jàngalkat bi li man haazal qalam kon moom moom big bi al jamil bu rafet bi allazi bi nga xam ne alal maktabi moo si kaw taabal bi albaytu alkabiru mag bi allazi bi nga xam ne fi zalika chanre mo ngi si mo ngi si mbedd mbële lil wasiri ñel na ministre bi assariru lal allazi bi nga xam ne fi xulfati xaalid mo ngi si néegu xaalid maksuurun luñ damm la ginnaaw ma lay jàngal naxtu am manoon mu ne baytun kër baytun mooy firi baytun mooy tolloog manoon jëriñ mooy firi naat ndax baytu gi moom la ñuy melal kon kon ba foofu manoon la ngay tuddee manoon boo ko déggee mooy la ñuy melal naatu boo koy déggee mooy mooy melokaan melo melo bi mooy jëriñu jëriñu xam moom lañu melal moom lañ moom lañu melal baytun baytun baytun euh, jëriñu moom mooy melo bi menoon moom lañu melal si jëriñu mu ne alkitaabu alkalimaatu jadid yi ñooy baat yu bees tarsu bi mu ne almaktabatu mooy firi bureau al aana mooy firi léegi almirwaxatu mooy firi ventilateur almustawsafu moom mooy firi euh, clinique almadrasatu sanawiya mooy firi école supérieure classe yi ngay defee bac al wazir moom mooy firi ministre shahirun mooy firi siiw haadun mooy firi lu ñaw kon tey loolu moo nekkoon dars bi ci luxatul arabiyya lépp ci jub ci yàlla lépp ci dëng suñ gàtt xam-xam suñ ne gëstu la nuridu ila al islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullah